Cheikh Ibra Fall na jamono ju sëriñ Bamba nekkul Ibra Fall newu ca ndaw jamono ju bari gumba ki gaana doom gumba gi dana am loxo yum jàppee waaye du am bët yum xoolee gaana gi am bët yum xoolee waaye du am loxo yum jàppee su boobaa nag ganaar gi dana yëlbu te si digg mànding la yëlboo te su boobaa cuuj bu ci wadd bukki for la